anticipé bi filo yi mën naa wax ne sujet yi bon des naa métti comme niñ ko foogee woon ndax euh, année bi doon na année bu xaw a doy waar quoi mais nag d'après luñ jot a jàng euh, yàlla def na ne daal sujet yi oyof na ci kaw candidat yi si lu ma gis waaye hmm. ndax euh, jot nañu joxe trois sujets yoo xam ne bi si nekk acceptable na te aussi jëfewul jëfe boo xam ne daal élèves yi war na si am problème boo xam ne daal mën na koo kii daal boo amee benn idée boo xam ne daal euh, compréhension boo xaw a tuuti rek mën nga si daal si. ah sujet yi moom ñëw na sant yàlla rek parce que xaw naa kii da mais def nañ li nga xam ne que ne moo nekkoon suñu xel aussi moom lañ jàng di xaar yàlla nag may ñu mu may ñu génn ceeg jàmm ñun ñëpp ñu amandoo mention bi am na gàllankoor bu bari moom ci ñun mais dañuy sant yàlla comme que corona bi moom yàllaa ko fi indi mënuñu lu kii ko rek yaa ma gën a xam ñu dañuy sant yàlla daal. sujet waaw am nañ ci yaakaar moom incha allah. waaw sujet yi bon c'était abordable franchement sujet yi vraiment bon complexe wul ba pare bon pièce bi bëriwul quoi noonu lañ ko mën a tënkee d'après bon niñ ko gisee quoi. bon par rapport ak Covid bi nag yàqul dara amul benn impact si si sujet yi nga xamante ni jox na. d'après les sujets proposés lépp def nañ ko en classe on a traité tous les sujets en classe. is bi nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax préparation yi xëy na metti woon na ak fi ñu ya fi ñu yaakaaroon ne fi lay egsi xëy na egsi wu fi is sant nañ yàlla daal yaa ñu ngi am yaakaar daal di xaar yeneen yi nag incha allah di xaar le deux incha waa ins bi nag sant nañ bu baax comme ni ma la ko waxee rek wax dëgg yàlla même liñ ci doon xalaat ak yooyu yëpp demeewul noonu biñ dikkee daal sant nañ daal facile na daal xaw yomb na daal sant yàlla rek di wax alhamdulilah rabbil ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam incha allahu rabbi bu baax baax ndax euh, ni ko foogee woon sax mën naa ne demeewul noonu comme ci côté ni question yi demee yooyu noonu waaw ndax ñu ngi ko doon foogee feneen daal comme programme bi ni ni nga xamante ne noonu la affaire bi xewee woon a laalee kii bi programme bi yaakaar naa gis ñu si lu mel noonu ñu ngi koy sant sax sant nañ ko yàlla bu baax waaw jafewul de jafewul moom macha allah jafewul parce que tamit nekk na ci biir programme en plus tamit nekk na loo xamante ne jaar nañ ci ba pare moo tax yomb yomb na daal man naa ni yomb na. sujet bi demee man pour man xel daal na daal ndax dañ ko séntu woon wax dëgg yàlla demeewul noonu. am nañ si yaakaar ne yomb na te dina may élèves yi confiance pour seen xel dina daal seen épreuve yi ñëwaat. sujet bi ñu man pour man xel dal na daal ndax fañ ko séentoo woon wax dëgg yàlla demeewul am nañ si yaakaar ne yomb na te dina may élèves yi confiance pour seen xel dina dal seen épreuve yi ñëwaat. ñu gis ne toog ngeen lu yàgg jàngoo leen après benn moment ñu indiwaat leen est-ce que tamit sujet yi ñëw def leen benn gàllankoor par rapport ak Covid ni mu leen dikkee woon. waaw mos gis gàllankoor parce que fekkoon dañoo laaj loo xam ni dafa sujet bi dafa génn. liñ jàng wala suñu programme àgg fa boobaa man man mën naa def jaxanteen si ñun waaye ñu sant yàlla ndax malgré Covid bi ak li fi jaar lépp fekk na ñu ñu jox fekk ñu jàngale ko suñu programme mu mat mu xaw a sori daal. gannaaw ñu sant yàlla bu baax a baax moom ñu sant yàlla bu baax waaye eh, xëy na jafe na nag waaye jàng nañ waaye xam nga loo xam ne moom bu ñëw kenn kenn du la tàggu te it eh, xamoo fu ñu lay génnee. maanaam métti na méttiwul ndax dañ ko lëntër rek waaye boo jàngee moom te it maanaam nga gëm yàlla dana yàlla dana dimbali maanaam jafewul waaye dañ ko lëntër rek mu daal di lënt loolu rek la waaye ñu sant yàlla bu baax am na